xibaari biti réew yi. dañu koy dooree ak RDC di république démocratique bu Congo gannaaw ba tam ba suuxoon am lu ca faatu bu ñu di Félix Tshisekedi gannaaw bi mu bindee am xeet yi jot nañoo tabbu benn soxna ngir mu jàppale Union africaine secrétaire général bu ONU di Antonio Guterres moom moo jël dogal bu ni lépp rek jëm ci andi jaamu ca foofee mu nekk nag lu am solo loo xam ne mën naa indi ak coppite foofee démb réewum Portugal ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay doomu réewum Allemagne ñoo ñàkk seen bakkan ci ab accident bu metti mu nekk nag ab bis boo xam ne dafa yeboon ay touriste ñu jëmoon ci wetu fa ñuy wax Santa ca noonee nag ci la seen oto ba amee ay jafe-jafe am ñu bari ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen i bakkan am na itam lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci ay jigéen ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan am na itam ñoo xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu yu metti ba jamono ji rawale nañ leen démb réew mbiru ko fa nekkoon njiitu réew ma di Alan Garcia dafa xaru laata ñi koy teg loxo mi ngi ko defee nag ca këram gi nga xam ne moo nekk ca Lima te jamono joojee nag fekkoon nañu naroon koo teg loxo dañ ko toppee mbirum juut njaate ak jëf doy waar yi ñu jàpp ne moo ko def moom sax yàgg naa bëgg jóge ca réew moomee Pérou dafa jàpp ne nguur ga fa nekk dañ ko doon fitnaal te noonee nag ca la dóor boppam bal ngir bañ ñu jàpp ko doon te teel nañ ko yóbbu hôpital opéré ko waaye mu jéewu dund moom nag ca atum 2018 bokk na ci njiitu réew ya gën a ñàkk bayra jeexalee ko ak réewum Indonésie njiitu réew ma di Joko Widodo falaat nañ ko ci jongante njiitu réew yi ñu fa amaloon waaye nag naataangoom bi di Prabowo nga xam ne islamiste yi ñoo ko doon jàppale àndul ci lu nu mel ba tax na nag ñoom ña ngay ji njiitu réew ma ne dafa amal ak njuuj njaaj ca élection yi waaye nag bu ñu sukkandikoo ci résultat yi am na lu toll ci téeméer boo jël juróom fukki ya ak juróom ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak moom di xamle ne ñoom kay mbijee dañu ko gagné ci anam bu leer ñi ñaxtu nag dañoo ñàkk ba pare ñànk yi jërë ngeen jëf mbokk yi li leen indi loon ci xibaari bitim réew yi